mbooloo mi bari na waaw fii si ancien garage la xew ancien garage waa groupement Alim ngeen jàllale ko si yéen a kaay ancien garage mooy tàkk nii waa groupe Maxalim waa groupe Maxalim ancien garage Zouza ah Mohamed nga jàllale ko bu baax a baax groupe Maxalim ah ancien garage tey 31 midi 51 31 midi 51 sappoor ñëw na waaw biir ancien garage kenn xamul nag lu ko lu ko jàpp waaye xam naa après information yi bu ci am rek dara lañ ko wax.

ancien la xew ah, ah. ak càkk bi bëri de bëri na lool ba jéggi dayoo jéggi na bëri na lool ba jéggi dayoo daanaka xaaju garage fii nii jël na ko ba ma koy soog commencé di filmer àggutoon fii mais fii nii daanaka boo moytuwul garage bi yëpp dana tàkk waaw xam naa ne moom léegi mu agsi sans place moo xam leen ngeen jàll ko ñëpp xam ko ancien garage Touba garage Touba ancien garage Touba garage Dakar bu njëkk ba fa mu si rond bi waaw moo xam leen ngeen jàll ko bu baax a baax waaw mi ngi tàkk ne mais kenn xamul fu ñu am sapeur ñëw na waaye sapeur mënu si dara sapeur nga sa bunt ba mënu si dara waaw xam naa ne moom sama place moo si sopp wasalaamaaleykum Grand Majul de